njabootu lislaam yéen ñi ngànku ci fédération pays scandinave yépp doore ci Danemark di ñu teew fii ci Copenhague nuyu mbokk yi bàyyi ko Sweden ca Stockholm ak ñu ko wër yépp nuyu mbokk yi jógee ca Islande ak réew Islamique ñu ko wër lépp nuyu ñu jógee Thaïlande Helsinki ak lu ko wër lepp nuy ñu jógee Norvège Oslo ak lu ko wër lepp nu ngi leen di boole nuyoo bu tedd di nuyoo bi gën a sakkan ci jullit te gën a rafet ta borom bi digal nu ko di leen wax assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu ngi jiital ci kàddu yi sant borom bi subhaanahu wa taala ñu defal bi fadli bii ngëneel ak tawféex ba ñu bokk ci jataay bii fii di fu sore sore sore sori ñu bokk ci ñaan Serigne Touba gi nangu te mu waxoon ak tubaab bi ni inni uxaalibu nasaara turra fi ardihim bi maaliki mu torra naa ngeen ci terrain neutre ñu damay yëkkati lislaam lu nekk ngeen def ko sama kaw te du ngeen am ndam te dinaa am ndam ci seen kaw dinaa demaat ci beneen façon ñëw ca seen suuf ya di fa wéyal li ma bëgg te li ma bëgg weesu bëgg bi yàlla bi ak subhanahu wa kon ñaanu Sëriñ Tuubaa nangu bu mu waxoon mooy sunu jataay bii kon ñu sant yàlla mi nu ci boole di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni su gene fatali ko touti amna jamono buñ ko caricaturé ci suuf si Serigne Touba mi xadim rasul tontul la ko ci jotaay bi di ñaanal sunu yaakaar Cheikhul Khadim yàlla ko borom bi dolle gërëm ak dolle ko fayal Serigne Mouhamadou muntaha al khalifatul am li fatil muridiyya yàlla yak sunu kanam teewel nu ngi yaam ci rakkam ju tedd ji fi teew nga xam ni teewaayu bii wuutale ñu ko teewaayu si Muntaxa muy sëriñ Issa Mbàkke bokk ak sëriñ Muntaxa lépp maa ngi wax léegi xalaat ci sama xel ni budul woon wàllu sëriñ Tuubaa bi sax moom day sëriñ ci maam maam ci wàllu meel ndax maam Maaram Mbàkke moo jur ku ñuy wax soxna Mbàkke Awa Ñaŋ soxna Mbàkke Awa Ñaŋ moo jur ku ñuy wax tafsir Amar soxna Jaxate tafsir Amar soxna Jaxate moo jur ku ñuy wax Alassane Jaxate Alassane Jaxate moo jur xëy Gumba Jaxate xëy Gumba Jaxate jur soxna Bintu Jaxate moom sëriñ yoo ko jaxaaxaan jaxat soxna Bintu Jaxate sëriñ Bachiru Mbàkke moom sëriñ boobaa dëppoo ko am ci sëriñ Moustapha Bachir am ci soxna Fat Mbàkke am ci sëriñ Muntaxa ak sëriñ Isaaka mii kon bu dul woon wàllu sëriñ boobaa geet sëtu maam maaram la ci wàll yépp waaye muy doomi Cheikh Mamadul Bachir di rakki sëriñ Muntaxa di sëtu Cheikhul Xadim ñoom bi mooy ñëw sëriñ Touba ci Danemark nu mu koy dalal Mbàkke Bàlla di ko ñaanal wér ak fan gudd jaar ci moom nuyu mbokkam yëpp nuyu soxna ay sat Mbàkke bint Cheikh Mouhamadou Mourtada soxna Assu mooy soxna Aysatu bintu Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikhul Khadim moom sama mbokk la ñoo bokk kokki man kokki laa ci ndey ak baay ñu ngi koy siyaare bu baax liggéey bii am na ci taxawaay boo xam ni ba muy door lépp moom mu sonn ci lool te lu xam ci liggéeyal maamam jaare ko ci maam Mariama Bousso ànd ko soxna yi ci diaspora bi yépp dañuy daje ba États-Unis lii rek mooy ñëw yàlla yàgg Mbàkke nu lay ziar di am mbégte lool nuyu seen mbokk mu baax ñi nga xam ni bi yoon wi melee ni laax bu dal jër maanaam moo ci dëpp loxoom juróom-ñaari at xaar sëriñ boobaa muy Cerno bi dem ndax jafe moom la sëriñ boobaa ni ko demal na la Cerno bi fasam bi rëpp tëlee ca Mbàkke Baari Jolof sëriñ bi jëm ci tukki bii nga xam ne mooy borom sëriñ jëm bi buum bi dootul jeex ceerno la dégg lépp keroog bi mu waree ci awnullaahi teg loxo ci bopp sëñ Moodu Moustapha teg ci bopp sëñ Fàmbu dañu dénk naa leen yàlla ak rasulilah ak seen bàyyi jàll moo ne woon dénkaane koo wóolu dama wóolu jàll ak Moodu bàyyi Serigne Basiru Anta Ñaŋ borom xilaafa mooy wéy juróom sëñ Mahmad Adama mu ngi lay nuyu moom mii fi teew teewal na fi maam Thiallo li ma gën a neex moom xam-xam benn baax yëg lépp dañu ba ñu sëñ Muntaxa yebalee rek bu ma ñëwee rakkam bi teew wutale ma ko sëñ Muntaxa amatuma ci defal nii su ngi lay siyaar bu baax Mbàkke di tuub toogal doom yi jataay bi dëroori yël moo ko waaye kon duñ toog fii ñu lay nuyu bu baax di nuyu sa soxna su baax sële di soxna Assou Mbacke bindu sëñ Modou Awa Balla defe naa le 6 6 bii laa doon waxtaan sëñ Modou Awa Balla ca Sénégal sëñ Modou Awa Balla laa yàlla mi nga xam ne Serigne Touba ñu woon ko demal daal téel ma sa bàyyi Thierno lu mu bëgg nag a taxaw ci téel diggante ñor de géñ loo bëgg di bul sa yoon nekk maa ngaa koy ñor di man sëñ Touba loo ragal maa koy ñor Modou Awa Balla mu a nuyu doomam yi nga xam ne mooy jaamam jigéen ànd ak sa soxna ñëw ci jataay jaarale nuyoo yëpp ci Ahlu Mbàkke nag ñi fi teew waaye dara nuyoo soxna Fatou Mbàkke ndax bi ñu ñëwee danoo daloo teraanga bi nekk mu defal na ko yaatal lu lool ak sëriñ Samba Jamu baax a lay boobaat léegi noppalu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara jaarale suñu nuyoo ci ñoom nuyu waa fédération bi yëpp ak daayira nuyu soxna Fatou Mané mi nga xam ni sama tàbbi si jataay bi ci moom la sababoo moom Suède la féete waaye mu yëgee liggéey bi rek yàgg na maa seetaan mu ni su ma sañoon sëñ Ablaye dina ci teew jokkoo ceeg man ma ne ko jamono boobu dina ma fekk ci wàllu boobu ndax Allemagne xalaay màggale leen mu sonn ci lool bolen mag soxna ali ibn sa'd yow ba ma ne ñam nga xam ni moy jëwrin digeen yi ci daayira bi fii ñu def effort bu nek son ci ba suñu borom dogal sama teew leneen xatoon na defé na wax na ñu bi may ñew sama soxna soxnaa ñu toll diggante waaye bëgg maam jaaraa tax ma engagé wu ñëw mënoon na tok ba mu yéwé ko ma xéwal ko ba noppi doore waye loolu la yalla nam ak bëgg maam jaaraa bi ñëwé tam tay jii lañ ma woo ni ma am na tay gone tay jii ci Sénégal tay ah kon mu ngi leen ko yëgalal noonu mu ngi leen nuyu bu baax di sant wa association bi ñi nga àndal ñëpp soxna Daba Sagne mu ngi koy nuyu suñu soppé la soxna Daba Sagne jox ci sama mbokkum mbokk yi nuyu jàngat xasaa yi fi téw yëpp nak suma ko jaarlé ci Cheikh Ahmadou Bamba ciun mu baax mi nga xamni sama cheikh la ñu bokk benn date de naissance muy sama xarit sopp ma lool bëgg ma ñu yàq mën a jàng lool te sellal ko jaar ci moom nuyu sëriñ Sidi Njaay ci njàng mu wériñu moom nee na daa xaw a paam waaye ñun nangu ñu ko di jàng mu neex la fi jàng yàlla yàlla fay leen seen njàng bi neex na wér na mu nuyu ñi nag ak sax sëñ bi may ñëw Portugal la ñu mu jox ma numéro ba ca kër ga ni ma jaaxal ma ko door ji laa ko maa ngi nuyu association délégation bi ànd ak sëñ ak soppe yi fi fekk beral nuyoo ma di sama soppe di sëtu sëñ Ba ak sëñ Cheikh Thior daf maa gis muy dugg ma ñaari complète ak biir sëñ Bouba sëñ Daouda Mbaye mu lay nuyu sëtu Cheikh Sadji Mbaye ak Cheikh Cheikh Samba léegi la may wax ne da ngaa a waxtaan ci sama maam waxtaan bi dugg ma ak yéen bari Euh, ñu ngi nuyu ñëpp boo limee doo matal te ñëpp lañ bëgg a jox seen wàccuwaay sëñ Baara Ndegere ñu ngi lay ziar maa koy wax léegi at mu jot maay conférence boobu ca Ndegere ci seen maam sëñ Mahmoud Ndegere mu mel ni Maodo bi firi na boppam thème bi thème bi firi na boppam pays scandinave ren bu ñuy sant kan la sant maam Mariama Bousso maam Jaara muy soxna soo xam ni. war nañoo càmbaraat ay jikkoom te roy ci jàngale wax ko ci pénc mi ndax jigéen ñi roy ci ndax jigéen mooy société su jigéen baaxee lépp baax te lu jiitu lislaam di ñëw dañoo doyadaloon jigéen jigéen dañ daan wax ku ko am ku nekk am nga koo xam ni amul benn représentation ci biir famille loolu lañ xeebee woon jigéen amoon loolu moo amoon dañuy wax jigéen ay temps sax daawul doom bokkul woon ci dara ba yàlla subhanahu wa taala àbb wax ci loolu ci alquran yàlla moo leen valoriser yéen jigéen ñi yàlla yelanteeg nag ngeen xam ko waaye yàlla leen jox valeur yéen képp a am saar ci alquran bu yàlla tuddee yéen jigéen ñi surtout mooy les femmes góor ñi amuñu saar soo ko rijaal amul ci biir awra yàlla tànn ku baax ci yéen tudd sayyidatuna Maryam tudde ko saar boo jàngee sóotul Faatiha jàng sóotul Baqara jàng Aali Imraan jàng Maayda Baqara Aali Imraan Nisaa jàng Maayda Lan'am La'raaf Lanfaal Tawba jàng Yunus songu Huud teg ci Yuusufa jàng Rahd soogu ibrahima bi diwi teg ci israil nax li israil kër fi suurtu mariama nga ciy teg mooy saar bi yàlla tudde soxna su baax ci tudde ko sayyidatuna mariama mi sangu jigéen ñépp loolu cër la ya? yàlla ya wax ci alquran nii am na lu jitu ngeen di ñëw ñoo xam ne seen jikko moo doon ñu toogee ci pénc yi waxtaan nu ñëw seen jabar accouché na ya am na doom yàllaay wax suuna dañ koy wax ni ko ah lu lu soxla ci am neena su fekke ci annonce dañ leen jigen la am nah, kan dañuy gañ seen kanam mel mel ni ko découragé ni jigen la jur ñu ni waaw yalla ni ñi ngeen di atté lu xébu la lu doye bu leen atté ci lool jigen baax na goor baax déggal alxuraan wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadan wa huwa kazim يحوى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يقصه في تراب ألا ساء ما يحكمون سورة نعم يلا نعم bari wala ko ngeen dégg tey muy kilifa su ma saa am doom bu jigéen tey gañ kanam ci découragé mer mel ni warta am jigéen mel ni dafa xeex jigéen yàlla ni mënu ngeen di atteel ñaaw ci pénc yi yëm ci ak yéen valoriser jàngal lu ay jigéen ñoo xam ni ba am luy tukki manees naa koy ci ñoom tudd naa ci léegi Sayyidatuna Mariyaama yàlla da ko tudde saar Mariyaama def kéemtaan bu rëy ci pénc bi xam ngeen mooy lan am doom te amul woon borom benn sëñ Abdul Xaadir bu baax bi doomi sëñ bu baax biñ ko ko njëkkee wax ni ko soxna si di dafa am doom te amul borom benn mel ni ku ñu tooñ suñu Abdou Khadre mu maa xam a tax xamut loolu dafa wax ko doon présenté ah ndekete jigéen amaat na jigéen ñu am doom te amul borom kër ci maam Faye yàlla dañ laa ko dégg woon ndeysaan foofu nag loolu sëñ Tuubaa doon ci baax Seydatuna Mariama dafa am doom te amul sëriñ bu mu àndal amul borom kër alxuraan nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais problème pour yéen jigéen ñi ngeen jàng jigéen mën naa baax dégg ngeen wasku fil kitaabi maryama isintalata min ahliha makanan sarqiyan fataxasat min duunihi xijaaba fa arsalna ilayha ruuxana fa tamasala ya laha basaran sawiya qaala inni audu bi rahmani minka ya. in kunta taqiya qaala innama ana rasulu rabbiki li laki غلام غلام فقيا قال أن يكون wala غلام ولم يمسسني بشر ولم تكن بغيا di ko sóotu Mariama dafa am doom te amul borom kër waaye li ci yéene di miracle bi mu jëlee doom gi indil ko ay mbokkam te amul sëriñ mbokk yi dañoo commencé di ko tuumaan ci ne mu ci àdduna yow Mariama yaa ngi gàcceel nooy amee doom te amul sëriñ boo àndal du sunu nga sunu askan yow doomu xànnatu ak doomu Imraan Ya untuk hal mundur lah jangan jawab itu budi. Jadi kiamat kok layak. Wa adat bihi kaumaka tahmiluhu kariyana yang menakadi bisayang fariya. Ya udah alun makan abu kima asal makan mungkin baria. Fa'asal bi'ili halu kaifan kalimat kana fi mahdisabiyah kali ini aku Abdullah kata yang kita apa wajahani nabiya wajahani mubarakan ayyamakum ya, wa awsaani bi salaati wa zakaati maa kuntu hayya wa baran bi waalidati lam yaj'alnii jabbaaran shaqiyya wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayya zaalika sa'yu Maryam wal haqqu llazii fiihi yamtaruun loolu miracle bu rëy la yéen jigéen ñi képp am ku ko def te bokk ci yéen ñi Sayyidatuna Maryam nga ni keroog bi amee doom amul borom kër ay mbokkam na ko tuuma doom ji moo wax Isaa dafa judd wax. ni sama yaay moy yàlla du ko bon man mii la yalla yàlla jël lu boo maa nar nek yalla sama yaay bu baax la ko kenn ko ma def lu ñaaw doom la yaay ndayam ni soxla su tedd suñu wax Mariyaam yalla ko yalla yàlla ni Mariyaam ya maryam inna laa stafeeti wa tëhërëji wa stafeeti ala nisaa alamin ya Mariyaama ya dalaa la setal la tànn ci kaw jigéen ñi ak dëkk yeb kooku sen model am ñun beneen modèle bu ñuy wax soxna Xadiijatu Xadiijatu moo njëkk sëyal Yonent bi alayhi salaatu wa tax nage bu fukki at ak juróom modèle la ci jàppale ko ci bu facture amee mu fay ko ndax moo ko wërsëg bu liggéey jotee mu liggéey la Yonent bi ëpp ko xaalis xaar ko gëm ko jural ko doomam ak doomam yépp ya? ya? ku dul ibrahima moo la jur man ni dem naa ba mu allah benn année ñu waxtaan nga wax ci xadija yi sëg yi ci màkkatal mu karam nah, nga xam ni xadija di beneen affaire ya? daal yaram tubi bi ko commencé gis jibril te xam lu ñuy gis lu mu doon bu yaram tubi ñëwee naan sàng leen ma xam ni loolu nii tasimoo nii maa ngi lii maa ngi lox xadija ci ñëw taxaw ko ni ko la sa xel daal óolu histoire yi jàmm lay mujjee ndax doo lekk bàyyi kenn loo am mbokk doo say mbokk doo leen nit doo gëj nit doo toroxal nit ku bëri yërmande nga ku wóor na doo nekk ni daw ni yow daal lu mën xew di lay fekkee jàmmale lool takk diggam ànd ak yeneen bi yóbbu ko ci mbokkam mu tudd waa xatat na naw fa te ko Muhammad moo tàmbali gis lu mu xam mu koy feeñ mel ni lu am ay laaf yonent bi nekk li warxa ba àggal warxa reetaan ni ah zaaki naan muusu Musa li ngay gis moo daan feeñ yonent bi yàlla Musa mooy law Gabriel aka neexoon jamono bi ngay woote Màkka yaay yonent bi mucc aka neexoon mu fekk ma ci doole ak kàttan ba ma jàppale sa mbokk yi nañ la génn de yonent bi siggi ni ko ma génn mu ne ko li nga yor ko yor ñu xeex dinañ la génn di dal yonent bi ba jural ko li ëpp ci njabootam motax fi la ngi jigéen da ci nek yaram bi dem na ba ñëw madinatul munawara ginnaw bi yor aisha aisha am gën mo doomi abou bakkar mooy soxnaam sun ndaw mom la yaram bi gënoon a bi ci soxna bu yaram bi toogee yi fatali ko ko mbax mbax am rek aisha ko mel sama sama ko waaye sa màgget ko fa bu yàgg nga nek ko fa ko ba tay yaram bi ni ko xadijatu mu jural sama doom gëm ñu ñun ñëpp weddee jox ma àllam du dee mukk ma koy fàtte du ngoon ci man nga xam ne ay sa da doon fiir ci xarit ci du xarit ci wetam seen na ay sa ci seen modèle ba tey moom ay soxoo loolu am bakkaar dégg ngeen yàlla bi ni seen un tiers diine na ngeen ko jàngee ci ndaw si képp ku aramale Makkatal Mukarrama wala def aj Makka aramale fa su fekkee jaaroo Madina wala jaaree Madina zone xolay fa ngay jaar biiru aali pour aramale foofu waaye bu dee màkk nga jógee il faut nga jaar masjidu aysa fa ngay aramale kon am na symbole bu rëy mu ñu représenté ci islam xool leen ko mel ni Aasiya bintu Mazahib nekkoon soxna si gën a yées mbindee ci Firawna waaye mu baax a baax a baax ba yonent bi nee na ëllëg sama soxna lay doon biir aljanna ñu ne ko Firawna ñu ko yoroon nag mu ni liir bi mu sëyeeg fir awna la saa bu ko fir awna la soxlaa di sëyeeg moom awram mbaamu jigéen la yàlla daan doxale seen diggante mësta séq ak moom dara ndawam la génnaale àdduna yàlla nga ko dencal ci biir àjjana la ci taws xool leen kon ku mel noonu xool leen amina mi jur sang ñu def yëpp yenantu yàlla Muhammad waaye ñi ngeen am modèle bu leen soriwul waaye yéen ngeen am modèle bu leen soriwul fi mu ne maam jaara li ngeen ci wax lépp fanweeri at ak ñett la dund 33 ans mbokk yi 33 ans bariwul de 1833 la feeñ fu ñuy wax Bousso de Jolof 1866 la génn àdduna fu ñuy wax Poroxaan Maam Jaara fu mu tëdd ren la fa tëdd 157 ans ma ni fa Maam Jaara tëdd ren la fa tëdd 157 ans téeméeri at ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ren mu tëdd ko foofee te topp yalla ak topp sëriñam moo ko yóbbuwoon ba fekk Porokhane bari na ñuy màggal maam Jaara xamuñu ne yàggul Porokhane def ma sax un an maam Jaara ne li coow bari bëri bëri mat na un an Porokhane diir gàtt la fa def wacc fa liggéey mbaa xam tax tëdd na fa ba dem romb juróom fukki at ci mu teul dem ba jëm ni jamono leer di fa balé leer bo xam ni bu guddi jotee dañuy gis leer bi muy frotté ci armée jëm kaw di def ay étincelle ba ñu signalé ko Serigne Touba Serigne Touba boobam nga ñaar yow ñuy wax sëñ Modou Rokhaya ni ko dem leen ngeen seetal ma sama wér bi fu mu war a tëdd foofu ndaw li mu yónni bi mu ñëwee daa fekk ñaari xabru yi dell leer gi di ball te xamul ban la ci maam jaari tëdd mu dellu ci maandoo wax ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi ñu ko boo demee tibbal ñaari suufu xam yooyu te bu leen boolee suuf yi bu dee ngeen wutal musuwaar def suuf sële ak suuf sële ngeen indil ma suuf si suuf si dina wax sama yaay fan la dëkk gëjul ko sëriñ Tuubaa mu xool suuf si muul lii moo la ko toppatoo sama wéjur ñu ko def ren la am 157 ans fi mu des la may noonu jaar lii mu am. après 157 ans Italie diko defal daayira France diko defal daayira Maroc am daayira Danemark am ko Suède am ko Norvège am ko Espagne am ko Allemagne am ko États-Unis am ko partout dans le monde lu ko may top sëriñam ba ak top borom Cheikh Samba Mbaye yo Diop sama bokk la ca kooku maam la ci man bi muy woy mam jaar dañuy mutiyatul rabbaha wasayka sayyidaha dégg nga li mu wax maam jaar daan topp yàlla boromam waaye di topp tam borom këram yàlla yëpp la ko waxee mës ta mooy ndigalu boromam mës ta mooy ndigalu maam wax Anta di ko yor waaye sëñ Bachir Mbacke wéy jur sëñ Isaaka nii fi teew danoo jàngal maam jaar dañuy wakkaan sayyidatuna maam Mariyaam sa jaddatuna diini yatam loolu war naa tax jigéen ñëpp góorgóorlu bi mu ko njëkk a tàggee nee na sama maam maam Mariama Bousso dafa amoon diine jigéen bu am diine lu mu bëgg mu yomb ko kaana diine nga xam dafa amoon diine ensuite taxoon dafa nekkoon ku fenn jigéen day fenn am personnalité doo ko gis jataay bu woon doo ko gis muy wax lu woon lu baax képp ci lay dox ni maam Mariama Bousso dafa fegu woon kenn yëpp ndax loolu rek la dundoo mu ni déedéet wa kaana kasirata salaati wa sawmi wa sadaqa mu ni maam Mariama Bousso dafa bari woon muy julli kon bépp jigéen mu ne maam Jaara leen liggéeyal yow faat waxtu waru la waxuma nag farata naatale sax bu leen daa bay julli ba ci Serigne Touba ñu yaakaar wax na Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu bind wax sëñ maam Thierno. mu nettali wax sëñ Maxtaar bindaloo mu nettali sëñ Tuubaa ko wax li tax Maxtaar mu taxaw guddi naa fi de maam jaar moom mu dugal ci maam sëñ Tuubaa moom yi sama wéy bi moo ne woon Ahmadu góor yàlla yi dañuy taxaw guddi deel taxaw guddi góor yàlla yi dañuy taxaw guddi dee maam jaar laa yaroon ay doom ci ñu am lu ñuy doom ci ñu am diine yar leen ci ñu laaj ngay gis jigéen bi ne mag jaale lay liggéeyal dem ba am 60 ans dafa lu muy sangoo baal kooku lu muy laabee ah te kat bés nga koo laaj te kat seen mënu ko li ñuy def yëpp baaxul julli yëpp baaxul koor yëpp baaxul te rëy na koo laaj te mën xam lu ñuy sangoo la maam jaaroo da koo teel a xamal ay doon te ay atam ndax loolu la leen jàngal mu ni daa netali jaar jaar gal gaa wa kasiran ma tax yi alayhim salih da daa bëri lu naan nekk ni jabotam fi gal ba baax jaar ba baax pour ñu roy ko mo tax doom bu mu am ci xat na rek sang la xool leen taawu maam jaar ak mam waxal da Sali moy mam war jaar borom sa xam ngeen ñaata rakkaa la daan na fi la téeméeri rakkaa bis bu jox mam war jaar ma ci ko คำยินนุนดันเรียนหลวงคำยินนุนดันใหม่ได้แม่มาเราตับลุงไหมจ๊ะพอไปวันที่สิงคูบาเจ้าฟุตสิงคูบาเนี่ยนายนั่งจุบินเนี่ยนะพ่อทุเรดุยมาอมยิบมาหมดยาละจีเงินไปดาวน์มันยาก็จะดรอปคือเราอับดุลเราอัลลาห์เราเสียหมันบังมันพยาการยังมันจะรอกที่ดรอปกูจะดรอปซึ่งฮับบีบุลลาห์มาเนี่ mu nga fee ca pour Mbàkke ñuy ziar ñu bëri xamuñu ko ci ñu mu ganee àdduna la daal di wax ñëpp dégg kàddu daal mu nga pour Mbàkke ñuy ziar waxtaan naa fa mel bi joxoon sa billet Màkka mu nga ca moom ak ngeen dafa teel dem kon ñi mu am ñëpp ay sang lañu moom maam jaar waaye mu yàlla ñun ñëpp ci bëgg yàlla ak mbaax ak jub ak sellal ak laab ak am lu ñuy joom dégg lool sëriñam ba maam jigéen bari na ko yàlla maam Jaara laa bëgg te mën ñu la waxee maam Jaara dem na ba am lu mu war a toggal maam Mor jeex matt mu jël gaalam di ko damm gaal gaal gi muy def ay bagage am la damm pour def ko mat toggal ci Maam Mor mat naa roy xuru boo fa demee ñu war la fi mu téye woon sàkket bi téyel ko Maam Mor Anta Sali booba dem na bu guddi gi jox ñu julli timis ba jub gee mu jikki-jikki rek euh, ngelaw lu fort daal di séq taw bëgg am Maam Mor Anta jàpp ci lafu sàkket bi ni buñ ko takkul ba mu dëgër rek bu awee bu baax dina daal ni ko soxna Mariama mu ni Mbàkke mu ko kay jàppal ma fii maam Jaara jàpp ko maam Mor Anta Sali dugg ci kees bi fàtte ko mu taxaw guddi yëpp téye na ko sàkkani ba suba fekk ko suba teel maam Mor Anta Sali génn ci biir kees bi ñëw gis ko taxaw mu ni kii moo doon mu ko mën a soxna Mariama bu looy def fii mu ne ko démb bi géej jot da yaa waxoon na la jappal sakke di ñu lo ko takke démb ba tay nak mbacke dama déggul nga wax na bayyi mo tax sañu ma bayyi ma taxawon di xam bi jël mo ra na sali ni ko kon li mu taw lepp sa kaw la ko taw mu ko waaw na mu ne ko maa ngi ñaan ci mbacke alquran yi nga xam mom kep la xam di ko jàllale yalla yalla fayé doon do xam ni ñi top ndigal ñi ko yaakaar ëllëg ci yoonu l'islam ruu yi ni toll ci koy topp aju ci moom dina toll ni kenn tepp ndox yi ndox ci àdduna a xam na ko ku a xool nga xool kon loolu topp ndigal moo ko may soxna si ñu wax la maam Mariama Bousso di jëm na woon joo xam ni noonu la ko ay sangam ba maam Mor Anta Sali waaye nekkul jigéen ju am sutura da ko jigéen ñi roy ci sutura jigéen su amul sutura du mën a jur ko mel ni Serigne Touba ndax lu mu gis nekkal ndax fii jamono loolu moom jigéen ñi lu ñu xam nekk waaw ay ah, nit yoo xam ne ñu sëy seen kër sax dañ koy wax ci marché kooku du jur sang Serigne Touba ne naan ñi ñal sama secret ma toll ma toll woote sëñ Touba nee na dangay toll ci boor suñuy nopp maam yàlla daana ko bool jubee foo xam ne dañ koy tëgg wala mu am foo sëñ bi day yëngu ci ginnaaw maam yàlla maam yàlla xam ni sëñ bi bëggul na si ko duñ defee am tëgg foo sëñ xam ni sëñ bi a loo koy jëmee dem ba nekk magum jëm ni moom ngay sant caaxaan. xanaa ne ci bari na ci lool ñoo xam ni ñoom ñoo ngi ca dëgg fekk fi ne bari na ñoo xam ni dañu ne war a gën a boole seen bopp nii ngeen def fi ne bari na ci ñoo xam ni bu ñu woon tey benn artiste musicien bi ñëw lu nekk la fees jël a ñëw mu solo ci kaar bi te moo nekk caaxaan kon war a jàppante bu baax. lu ngeen di defal sëñ Tuubaa ngeen xam ni fukki jigéen ñu ànd te sëñ Tuubaa rekk tax maam jaara tax moo gën ci yéen ngeen nekk ñaari junni jigéen ñu joxe addiya te ko dee bersaw yoon déedéet ko dee bersaw yoon si yàgg taxaw fa ni seetaan Norvège Norvège taxaw ni seetaan Danemark te lépp di benn liggéeyal sëñ Tuubaa loolu du dëgg kon gën a la boole seen bopp te xam ni mbooloo seen doole mu ngi ci ànd nekk benn ngeen boole ko benn association di defandoo di dindee ndoo li ngeen di teg day gën a yomb gën a tuur gën a baax sëñ bi gën koo nangu ndax mbooloo ci la doole leen waaye bu dee àdduna mu jaral leen bu dee diine calcul bi am suñu boobaa mu calcul leen ku bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa bëgg a liggéeyal soxna si da nekk calcul nekk rek yàlla kese sëñ li yor moo ko moom te ci àndoo nekk benn ci lañ koy nekkoon jabar Abu Sufyaan njaal benn bi dafa bañoon lislaam bi Hamza daanoo ci Madina ca Uhud moo jëloon xol bi di ko saboote di ko buusu yaram bi yëngu waaye mu gën a tuut bi ñuy tuut 456 femmes la àndal ñuy 457 jigéen ñu seeti yaram bi dañu bëgg a ànd ak yow sa diine six conditions la nekkoon six conditions mu ngi sundul moom daal na ba defee insaan yàlla de test moom la ko wax yaa ngi doon lay jaatal mu'minaa ci lu bàyyi ak alaa laa yusrika billaahi shay'an boobu ci njëkk bu leen bokkaale yàlla bi njëkk njën ci liggéey la sëñ Tuubaa bu leen ci boole bokkaale yàlla bi ci topp wa alaa yasrifnaa jël loo moomul bu mu ci bokk wa alaa yazniinaa njaaloo bu mu ci bokk waaye ci condition yi la bokkoon ñu sóotul moom taay na waaye waaw dégg mu tegal leen six conditions bu leen duural kenn tam bu leen may am seeni doom yi xew léegi tey avortement yi xew yooyu tere woon moom l'islam lay wax alxuraan lay wax mu tàyyi bu leen ko bokkaale calcul baaxul calcul baaxul ku liggéey diine doo calculer fi mu ne l'islam yi ñu taxaw lépp ay joxekat la ko joxe ay joxekat rek fi mu ne sëñ Touba xam nga billahi da ta billaahi donte dañeel lu tudd dañeel dëkk fii ci Scandinavie dañeel da bu ñu wootelee Serigne Touba do calculer do am joxe ko yaa ngi bindul foofu ka nek ka tekk Touba ndax def yoonu jëf ko taxawal jëf ak ci bëkk maam jaare jaral leen da ngeen boole seen bopp yeen ñepp benn baax bi leen teñ ndax jaadul nak kii nekk ci Scandinavie kii nekk kële naan dëkk sàngam la sama yoon nekk bi déedéet bu dee li ñu Sëñ Tuubaa bi la loolu du jaar kon na ngeen gën a te a waar di ñu booleewul seen bopp ngeen fexe nag ba man jaara bu nekk rek dañuy màggal ñii te bañ cee roy déedéet loolu tam du am sens roy leen ci ñu doon doxee maam jaara daawul jëw te léegi yaatu na jigéen ñi jëwante maam jaara daawul yàq ab diggante maam jaara daawul gënte moo tax sëñ Masamba bari na bi mu bawee ba mu yàgg dañuy walam tusin abadan walam tuhin ahadan walam tubin abadan man abaha maanaa sëñ Masamba bari na bi mooy maam jaara nee na maam jaara walam tusin abadan mës ta ñaawal mbir bépp jigéen bu ne maam jaara la gëm tey ñaawal bokkoo ci wala tuhi abadan wala tuhi ahadan mës a am na jigéen ñu mën a jàlle ak ñu mën a benn nit loolu fay def bokkoo ci maam jaar waaye wala tubin abadan nag mës sa fay xam mer dara ci sa kër jëkkër rek takk say bagaal génn dem sa kër ñu ñeneen na may sama baax nee na jaar mës koo mu ne kon man aabaha maanaam képp ku ayibal maam jaara wax nga lu dul dëkk léppam dafa dëppoo woon ak lislaam bu sell am feneen kenn koy woy daal di wax ni lëhël alaama laa yaxfa ala ahadin sawmun salaatun du'aa'un summa istixfaara sabrun xayaatun wa axlaaqun muhazzabatun tiibul kalaami wa maa bil qawli misaal kii de xam na maam jaaw nee na maam Mariama Bousso daal li ci njëkk ngeen koy wax yii ay jikkoom la woon bi ci njëkk bari muy julli jullikat mag la woon mu ko ko takka takkaale julli bari muy woor ñun ndax loolu rek ñu jël bari muy ñaan yàlla dañuy ñaan. bari na koy dem ci sëriñ fu ne nga dugg fa fekk boo dee sa kurus torox lu ñaan yàlla may la bari na muy ñaan yàlla bari tam lu muy def istixfaar astafirullah di tuub maam jaara ko taxawoo sabru muñ kat la woon maam jaara muñ kat la woon sabru wasalna abada ala allati bihi lana alhuda bala ñu dalal sëñ Isaaxa Mbàkke mooy dugg si alhamdulillahi wa salla abada doomi sëriñ Basiru mooy dugg si alallasi bihi lana alhuda bada sëñ Cheikh mu Xadim bi jàmbaari islam ay ñëw bi amirin ni abdin rahmani doomi soxna bi ñu jaxatee dugg si wa bi abi maslaman alqawlani sëñ soxna Fari bu ma jaxate bi dugg si julli bi kufraan wa samaada sëtu sëñ Alassane Diakhaté day dugg si wal ilmi wal amali wal ibaada sëtu tafsir Amar Soxna Diakhaté day dugg si bil xasanil basriya sëtu soxna awal Mbàkke day dugg si hëb jalwaaw sëtu sëñ ma ma ma ma wal islaaqa min xawaaya wal bidaa mu daal ko jërëjëf Mbàkke wajal tawassuli لمن يدعو به سعادة داري واغفر به ولي وللسدان لنصره من أرض والرضوان وبسعادة وبحماية عن جملة الأسواق والعنايات وبالنجاة من سمار والأسد وسكرات المغفرة والحساب وبالمسارات وبالسرور عند المماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وعليه مع ساب النجب وفي الوالدين وفي أهلي وجملة سعادي يا سميع واغفر لكل سيء تعلق بياه واقع السعادة يا رب يا والطف بنا وقرنا وكلنا وحملنا حسن الكتاب ربنا وصل على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وصل على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم jërëjëf la sëriñ bi féetale woon mbirum soxna si di Cheikh Mahamadou Bachir màggal yi ñu njëkk a defar maam Mariama Bousso 1952 la booba bu koy màggalal benn carte bañ ca lewetal xéw na ña ba mu des kon booba mbooloo bari Cheikh Mahamadou Bachir ci ndigalu wéy bi mu tedd wa daan dem Saalum fekk fa magi taalibe ya fa nekkoon ñoom sëñ Bay bu ma taal di fa fekk ñoom Serigne Ahmadou Dramé ci daaw Pakaja di fa fekk ñoom sëñ Aliou Seck Wanaa di fa fekk ñoom ja doom bi tedd ja sëñ Moustapha Basiir yenn liggéey bi. réew taalibe moom lu nekk mu defal ko sëñ Abdou Ahad fu sëñ Abdou Ahad daal génne gis ngeen si Moustapha Bassirou di defal ma sëwut lenn lu mu gërëm sëñ Touba yar leen ci loolu jaarale ci rakkam bi ñett ji sëñ Mountakha ba tey sëñ Mountakha bi ñuy sëriñ Touba ñëpp a xam ni moom de mosu koo xaar waaye la na ngërëmu wii juróom yëpp làq magam yëpp génn te kepp laa di liggéeyal sëriñ toba kon rakkam bi tëdd ji su fi teewee jëmm si mu taxaa fi teew te wax naa leen léegi laata muy génn bu dul woon jëmm sëriñ Tuubaa ji lu ko teree nekk moom mii sëtu maam naaram la te maam naaram nga koo xool ci senegaal naw ko fii boo ko seetee ci maam la sëtoo boo xoolee maam naaram mooy maam yi sëñ Musaa Ka ndax moo denc soxna Absa Njaay ci muy doom am ci Zeynabu Mbàkke maam Zeynabu Mbàkke dem ca jékkeen am Ahmadu Seynabu Seck Ahmadu Seynabu Seck jur Afsa Seck soxna Afsa Seck jur sëñ Moussa Kawereka maam maaram te maam ku ñuy wax Mbayeen Jasse denc fa soxna Mbay am ci maam Abdu Mbàkkeem soxna Mbay maam Abdu Mbàkke jur Afsa Mbàkke Afsa Mbàkke jur Afsa Seck Afsa Seck jur sëñ Moussa Ka moom ngeen dégg ca way sëñ Moussa Ka naan maa wax bi xaadimul xadim daay jàmbaat ci rakk di doom te gën a yées nag ci xarnu bi ngir Abdu Mbàkkeem soxna mbay ak maaru mi mooy mooy bàyyi yaay sama ndey maa dikki nii ci xarnu bi te Seynabu Mbàkkeem ab sa njaay ak maaram mi ngën gi bàyyi mooy yaay bàyyi sama yaay maa dàmbe lii ci xarnu waaw su ko defee kon sëñ Moussa noonu la ñu sëddoo maam maaram jur Ahmadu soxna bu sa Mbàkke ahmadou soxna buso moo jur soxna afsalaw be mbàkke soxna afsalaw be sama mam sëñ tag isa jóg te kokkee ko dëkkoo am na soxna faat isa jóg jigéen ji wóor woon sëñ tuubaa te ci téere gaw ñu dégg ko maam ko anta sali mu am ci sëñ ahmadou daal faati mbàkke am ci maam càll borom bay teg maxaama am ci soxna aminata mbàkke waaye am ci soxna faat bintu mbàkke nga dellu ci maam ñun la moo jeej bakay soxna su tedd di soxna buso jóge ca Kolla rek am ci amul soxna buso amul soxna buso ju soxna ay soxna waalo naawe soxna ay soxna waalo ju maam Diallo Bousso mi ngeen di mam maam Diallo so meññ Cheikh Khadim yaakaar yi mbokami ba nga delu ci mam naam mo jur ku ñi wax sa ibrahim Mbacke awañal ibrahim Mbacke awañal ngay ci soxna ni Sow am ci soxna Anta Ndiaye Mbacke soxna ay soxna gaaw soxna anta njaay mbàkke maamoor anta sali dëggoo ko am bi maam cheikh kan anta borom daaru salaam ak taawam bu tedd ba sëñ mbàkke anta ba ca njaay ak sëñ aafe imaam ak soxna anta sali kan mbàkke kan ak soxna faat anta ñu jur sëñ mor faat jure nga dellu ci maam maaram mu jur cerno mbàkke fëri mata cerno fëri mata jur xadi mbàkke xadi mau jur ngañ ñang ngañ ñang jur safiyatu ñu ko mu am ci am sëñ Abdul Aziz Dabakh ca am sëñ Habib Sy nga dellu ci maam Maaram ñun la moo jur Cerno Mbàkke Cerno Aysa Cerno Aysa jur Mëti Mbàkke Mëti Mbàkke jur sëñ Ousmane Sy Ousmane Sy moo jur Seydi Hadji Malick nga delluwaat ci maam Maaram jur Soxna Mbàkke Awa soxna Mbacke Awa Ñaŋ jur tafsir Amar soxna Jaxate tafsir Amar soxna Jaxate moo jur Alassane Jaxate maam Alassane di moo jur soxna Sëriñ Bumba Jaxate mu jur soxna Bintu Jaxate mu jur jàmbaar ji toog ci ci di jëm joo xam ne yéen te la am liggéeyal Sëriñ Tuubaa kii ambassadeur la kii toog kii côté yëpp bi jàng ne ko dafa ko jàng ba teg ko taalibe képp ñoom mu ñëw ci ndigalu magam ci tedd bi digg sagal pays scandinave ci lu la kon kenn du ko téye ndax jot yóbbul te xam nañu ndigal la dikkee waaye fii mu toll ndigal képp ko mën a yëgee ndigal la dikkee muy ndigal sëñ Muntaxa moo tax bi ñu daal sunu kàddu dalal ko mu dalal ngoo dalal yëpp mbàkk yi gën a yokk ndax su ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa ba nanu yokk nanu yokk nanu wér suñu ñaanalee rek ba xam ni ah jox nañu ndigal lu àggale leen des ci waxtaan bi waaye daal kilifa kenn du ko ce fi jataay ñu ngi leen di ziar bu baax di tuub dafa bëgg sëñ Touba damaa fekk Abidjan defe naa 2018 la bisu xasida ba fay am ma def la conférence en français keroog may conférence am na benn ivoirien bu daanu ndeysaan yëkkati kay ci junni ni voilà ce que nous attendions de vous il faut nous amener des gens qui parlent bien le français comme ce gars-là il nous impressionne il manie la langue de Molière voilà ce qu'on attendait de vous

别熬夜。 ziyaara daan ne bala ñoo jox kàddu gi sëñ Mouhamadan nan la yeggee kàddu yooyu ndax nee na su ko mënoon mbaa teggil moom moo koy yëkkati boppam nee na gannaaw bi mu la nuyoo siyaare la ñaanal la ñaanal sama mag bi tedd bi ko fi lool mu ànd ko wér te ngeen ànd ko yéen ñépp ànd nee na mi ngi am kontaante boo xam ne xam na fan la tàmbalee waaye xamul fan la yem ndax nee na li nga def def nga lu rëy nee na def nga loo xam ne musta am ci Scandinavie ndax bii mooy bis bu njëkk soxna yi ci Scandinavie ñu booloo taxawal lu mel nii nee na tey jii mbégte kontante ak fierté bi mu am. amaana xamul fan la yem ndax kat nee na ba muy sos daayira Maam Jaara yi daf koo sosoon rek tegoon ko ci ndigal ndax xam na ni waaye loolu teel wa ci loola rek ne woon te moom it te loolu rek la nekk nee na ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nee na nag kàddu yi cant yi ngërëm yi mi ngi ciy jiital tam sëriñam xaritam wasilaam muy sëriñ Maam Mor Mbacke moo ko baax ci kaw liggéey boobu it nee na mi ngi lay wax ni moom ak jëwriñ ñu soxna yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci boppi daayira yi muy suwet soxna Fatou Mané fii ci Danemark soxna Ayotu Ñang ak fee ca Norvège soxna Ami Ndiaye nekk ca boppa ak nee na bu dee lim waaye ñooñu jëwriñ ñi yëpp ñu àndal liggéey bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci wayaf bi teewaay bi ak ñaar te it nee jàpp na ne ñëw lii la fi ñëw dana ubbi Scandinavie ubbeeku koo xam ne dootul tëjee ba mu kenn ba ma xee loolu ba waxtaan ak moom it daf li ma leen doon wax di leen ko ñaanal ak kër na leen ko dugal ci teewaayu sëñ Issa Mbacke nii kon sëñ bi loolu ay kàddu la yoo xam ne soxna Astou Mbacke moo ko yëngati woon mais nan la ko daaral ba nga amaana sax la ñuy wax ëpp na loolu waaye sunu wàllu lot ci wax lépp la nga xam ne wax nañu ko nañ ko bëggee soxna si bu dee am na dara ci màcc ñu ngi koy tudd bu baax a baax a baax ndax xëy na nan ko mën a waxee mënu ma koo jottalee noonu kon dañuy yokkaat bi sëriñ Mouhamadou Mbacke mu joxal kàddu yi soxna yi suñu noppee ñu jox sëriñ bi kàddu yi sëriñ Mouhamadou bismillah

du sax ay tekki yu gën a waaye nag yoonu mooy dafa bindoo ndigal bu jógee rek nga jafe waaye loolu ba nga accès ci réew bi rek lan waroon a def mooy nekk lépp loo soxla nga yooyu ñu dem doxalee ko te yow dawaat sa rek ndax noo bokk sëñ Tuubaa yaay suñu kilifa ndax yaay suñu mag di suñu lépp teewal fii Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xamante ne moo fi nekk ci bopp kër Serigne Touba képp ñuy ñaan ñëpp ñaanal ko mu yàgg fi te wér ba liggéey yi mu naan yëpp mu àggale ko ci jàmm sunu borom defal ñu ci loo xamante ne kii daan bu réeréer te buñ ko ñaanee rek mën naa ay at yu ñu jaaxal ay at yu yéeme yoo xam ne doomu aadama gëj na ko am na ko mu suñu njëriñ kese la bu noppee ñu ñaanal sëñ Isaaxa nii nga xam ne mës ta wàcc mukk toolu sëriñ Tuubaa bi ak ko xam-xam ne mës ta dox ko gisee ko koo liggéey sëriñ Tuubaa yi ko tax boole ci ñaar ñi nekkoon ci diaspora bi Serigne Issa daf leen yàgg dimbali xëy na man gis naa ci benn rëq-rëq sax bu ci am mooy nit ñi xamuñu li muy wax wala boog buñ ko xamee jëfewuñ ko waaye buñ ko jëfewoon ba nëgë ni fii lu toll waxtu wi lu toll mën naa xam ne immigration daanaka jeex na wala bu jeexul tamit dana wàññeeku baax baax ndax intellectuel la boo xamante ne tegoon nañ taalibe yi ci yoon boo xam ne. ay conférence yu daan def Italie di ko def Allemagne di ko def fu su ci taw bi jàppoo jàpp ci société yooyu mu doon tegal murid yi kon ba dëgg di weesu nekk na yàlla ñu ko doon wala bu ko yàlla wéral ko yàlla sàmm ko ba mu àggale liggéey bii bokk na ci liggéey soxna Jaara bii fu mu àgg ci dëkk fu mu àgg ci àdduna xam ngeen ne ci ña ko fa àggale ci la bokk ndax naka jekk mo ma sa doon jëwri ni liggéey nii sëriñ bi moom la daan yabal ba léegi moom la yabal fu ne moo ko fa daan taxaw di ko fa représenté di ko fa taxaw kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom taxaw la sàmm ba li nga bëgg lépp ñu àggale ko ci sa sago te suñu borom roofaat la ak wér ak kattan ak doole yoo xam ne liggéeyu suñu tubaab yi di nga ci bëgg lépp da ko mën a def di nuyu bu baax soxna Soumaré as nah, ci am moom damay wax ne sax su ma ko waxee du yaakaar ne damay defaral sama bopp xëy na waaye yaakaar naa jàmbaar bu maam ci am ñu ko dàkkatele moo ko dal moo ko sonal moo ko xaw a sonal tuuti ndax àll bi bari na ni góor ñi di taxawee fexe na ko fu góor di taxaw rek jigéen ñi taxawal loolu nag ndam lu réeréer loo xam ne soxna si def nga ko loo xam ne yoon mu lépp ko defal waaye ñëpp ko defal ndax sëñ Abdoulaye wax na ko léegi góor baax na te toolu xare yi jigéen mosu cee des ginnaaw dégg ngeen soxna Diarra ñu doon wax léegi dégg ngeen soxna Fatou Issa dégg ngeen soxna Soumaya di nga xam ne moo jëkk daanu ci jigéen ñi islam nga xam ne